leen ko waxee woon nuyu naa leen yéen ñi seetaan ñëpp fépp foo leen mën a nekk di leen ziar bu wér ci àjjuma bi ziar naa ñi ñuy àndal ñëpp ci zéro stress saa su nekk fu 17h jotee jàpp 18h ngeen toog jàkkaarloo seen petit écran di ñu euh, bégee nuyu nañ leen bu baax fépp fi ngeen mën a nekk di ziar kilifa diine kilifa yi ñuy seetaan ñi feebar ñoo ngi leen di nuyu bu baax yal na yàlla fëgg seen bopp ñu nekk ci prison yi tamit ñoo ngi leen di ñaanal ñu génn fa ci nawel bi ak na la tudd sax ci 31 bi ñu jëm nii sax nag mënta ñàkk sax nag nag ngeen dellu seen kër nag toog duñu seetaan en direct nuyu naa bu baax waa Japon Ndiaye Talla ka Seck yéen euh, koddu yéen da ngeen foox ci man ndax 2 heures xam nañu 3 heures boo jot Japon ngeen toog jàkkaarloog zéro stress kenn amul seen fay nuyu naa leen bu baax yéen ngi seetaan ñëpp amaa bu sa nuyu naa la nuyu naa ñi ñuy seetaan ñëpp di xaarandi sama xarit am di daal di ñëw fii nii nag comme tey vendredi la mënta ñàkk dañu def zéro stress bu toj ñu ko gunge leen ko ci week bi yëpp ba lundi incha allah mënta ñàkk nag kon ñu defante lu baax waxante ko ngeen di woote ci 88 628 17 27 ngeen daal di bés de ma ciy nuyu ñi may àndal saa su nekk nag mooy Kébé Pape Pape Sarr Pape Samba borom jaal bu yaatu bi nuyu naa Mariam nuyu naa la Moussa dara naam moo def faux départ boobu waaye ba ma pare ba alu nuyu naa leen bu baax yéen ñi may àndal su nekk dama bëgg sax alu nag ñu def clip bu baax bu toj ñu daal di may ko. sama stagiaire bu mag bi Moussa bari laa àndal xamul dara nag loolu fi gis rek muy dégaa rek moom lan day jàng di jàng sama kaw man mii fa lay defee profession am garaawut lépp mën naa nekk fekkoom zéro stress nga yeb ba di fi def sa stage dina la neex di ànd ak diw royal mi nga xamante ne euh, euh, képp ku sonn baa li ma dal dal la maanaam mi nga xamante ne da ngay bëgg yeewu di gën a gëmmentu moo ci am euh, moo ci mën kebe mu ay maa ngi doog a ñëw ah kuy dóoree mun kuy saaga te kuy rayee mun ñëpp te kebe tuy

xarit boobu nga xamante ne yow naa defanteeg yow lu baax ba ñëpp yëg ko ne Mad fan nga jëm yow sa taloo daal bu dañ. Ramatulaay yow ndakaar gi nga topp naan dama dox dox dox ba samay talon da dara sa daal uy ba yëkkati ko ah Kébé jëlal daalu nday Madi Kébé waroon na ma ko mën a jëlal Kébé bu dee nii seetaan sama daal yi de dara amu Euh, papa talon benn jox ma ko. papa amul ma <laughs> dama bàyyi la waxal <laughs> na mu ci sa case case de ndey màdd lu baax lool nga def ndeysaan case bi nga xam ne man moo ci duggee du ma bousee dama naan raaj bi rek toog. ndey màdd loolu noo ko inspiré woo case bu ndaw boobu mel ne kii. xam nga man boo nee maa ko inspiré yaa ngi tooñ tax man man ndax man bu may xalaat dinaa xalaat si lu ma xaj waaye kii ma defaral kër ndey màdd bi dama cee xajut man. kër gi nii na toll dama naan kay xaju nday màdd <laughs> waaye kër googu kay man kay xaju ma di aat ah, aat ah, ko ah man kay waaye yow man kay damay kii waa waa ana am di mi ñan defati na li mu mën rek li nga xamante ne du ko xëccoog kenn li nga xamante ne ñëpp dañ ko koo bàyyee am di xam nga démb dama ko dégg mu naan rama bul tardé ba ñuy wàcc di dem de loolu la doon wax mais mais tey daa tardé waaw wii lay jag la mu def ci karole mel nekk télé bu paan télé bu paan def ay rayuuram dana def waaw defe naa ne sama xarit bi li ñu nar a couplé de décembre moo def ci àddina sama rob waaw ku nekk a ngi naan ma maa la koy jox She Star boutique euh, sama xarit Oumou Ndiaye provocation nee ah, naa ma Rama ma la dafa lay robb àddina ñëpp dañ lay seetaan ma ne ko non loolu yëpp sax mën na cee bañ a nekk ndax nag xam nga boo rafetee da nga neex a defar. te man nag ay dara karaara damaa jonga ma ma defee robb tëral nday xool li ma kii defaral tey. fexeel xam ne Tidiane yu baax yi laay def 31 décembre yéen nag ku ko rate rek rate lu baax lu rëy. laay def na papillon rek def que depuis ah. Sidi Samb nee na moo ñu solal laay dégg naa de dama laa faalewut rek. Sidi Samb bu ñu solal leen solal ku mat Sidi man ngay solal man ngay defante lu baax dootoo ko dolli. Omo sama robe. yow fooy sol robe jëm day màdd. ah dama sol robe ñëw ah ci plateau bi laa bokk. 31 décembre. Ah. dama laa nga yóbbu She Star boutique ñu defar lu baax. si bàkk Serigne Touba Rama. ma yóbbu la defal lool. après ñu defaral la nga nekk jigéen nag bàyyi yëfi góor yi. yóbbu la salon xarindoo ñu daal di dindi rasay jëm la ko defal coiffure ah. Euh, Ramatulaay xam nga lii euh, tey. Euh, yóbbu la ci tabara mu defaral la ay ongle. tabara sama yaay. ah sa yàlla mais tabara mooy ki may defar ongle daf may defar traitement sama loxo daf feebar. waaw foo génn baax na dinaa la xaar. loo def baax yooyu yëpp duñ ko def ñëw ci 31 décembre. loolu lépp rek pour pour pour fête de l'année ñu génn ñoo amaat beneen nday maat. nday maat en mode féminin. beneen xoola rek leen. Eh, les téléspectateurs eh, dugg leen ñu àggali ak yéen lu baax dafa teg yéen yu baax àggali suñu kado yu baax yi ñu sekk ak yéen te ñiy woote ñëpp nag namm naa nag eh, koo xamante ne yëg nga sa bopp yëg ci plateau boobu mooy def muy le 31 décembre nga ne ñu jongama nga rek parce que nag damaa bëgg nag ñi ñuy seetaan bu ñu seetaan gis kanam yoo xamante ne day belli maanaam ñu jongama ñu laaj ci namm nag ñu ñëw boo leen wootee léegi man sax mën naa ñëw ba seen kër indi leen invitation bi ndax man bëgg naa daal defanteeg yéen bu baax jàkkaarloog yéen di leen defal li leen bégal en direct loolaan na mu ci yéen moo tax nag ma bëgg ku woote rek may ñëw ba sa kër indi la sa carton d'invitation noonu la koy waxee tubaab ñëw invité la ah Aïcha bu papa du ma ko fàtte kooku nga xamante ne ba kër Mbay Fall laay dem yóbbul ko invitation ndax kooku sama chéri la ndax mooy sama chéri caméraman bu ay bi nga xamante ne nag mu dara papa moo mënta ñàkk ma indil ko invitation am Anta bu Kébé tamit day ñëw def robb yéen ñëpp daal di ngeen ñëw bu leen nag mu dara ah ngeen ñëw ci xew mi day màdd comme day def ci kër gi yëpp dinañ ñëw waa ñi mës a génn ci écran bi sax nañ génn. ay bi plateau. ay spécial lay doon. spécial Noël la loolu. waa déglu ma ndax dama ci dama ci am lu ma fort tuuti. waaw euh, kii euh, Viviane Sidine Ndour nee na. waaw 31 décembre avant muy fël feneen fii lay ñëw siif ba pare. la ilaha illa ëpp na. teg ci. titi ne ma non la ma woy ci mbëggeel il faut nday màdd damay ñëw fii ci plateau bi wane ko la scène sénégalaise. <laughs> ma ne ko titi nee naa la ñun dañuy dem dañoo nekk ci yoon. te ku bëgg dem da ngay ànd ak ko man Mantoulaye àntalu ko. mune ma Rama célèbre sama ndit la sama xarit la. waaw bàkki Serigne Touba préparé na téléspectateur yi Viviane nee na ku dugg rek mu ak yow. lu baax nee la man sama plateau 31 décembre dama nam kuy ñëw rek def train bu baax rek rango sa écharpe lool la nam bu dama bëgg ñëpp élégante ñu gën ni def élégance rek nak xawma na la noonu papa papa Samba ñëwoo wala nga monté sey bëñ ku am ñe ko manké dara ci yow doo ñëw. eh nak ci bu nekkee su gisee gi ah loolu for na lan mooy ci mbëggeel a rëy maa wax nga waayat a sooy laay waxal rama danga nar sooy ci talaate gi xam nañu danga nar a sooy ah, ah oh, maa la gis noroon kuy sooy noroon ma la kuy guddee sooyam sooyam sooyam <laughs> waaw ma ne. man na mu day màgg lan ngay waajal euh, téléspectateur yi ci fin d'année bi. waa euh, fin d'année bi suñu xew ba pare nag. fin d'année bi moom xam naa ne Ndeye Made day préparé téléspectateurs yi euh, ndax xam naa ne kër Ndeye màdd bi. kër Ndeye Made waaw changé ko. non non kër Ndeye Made bi dafay ànd ak fin d'année bi. Mhm. xam nga man sama yëf sax def naa ne. waaw ba tey baax na loo wax rek loo wax rafet na yow léegi dañuy ànd ak xale yi ci fin d'année bi. ànd ci ak LCS ñu bégal leen te xam nga LCS dafa nekk loo xamante ne ni tey daa jóg pour euh, pour pour yee gaañ yi euh, ba pare di teg gaañ yi si ay fee di beer. fee di beer waay xam nga fee di beer yow maanaam lu xew ci dëkk bi rek euh, maanaam télé bi laase ko ci yooyu lay yëngu. teg ci di bégal jaam yi man dëgg nday màdd nag man ma taamu ci xale yi jóg dem di ngir bégal xale yi. tolloo ak ñoom. maase ak ñoom jamono waxtaan ak ñoom. dafa may neex. kon kon kon c'est bien waaw kon Casare am naa ci am naa ci néeg. <laughs> dama comme xajoo ci. <laughs> noonu namu naa rek naa di jàkkaarloog xale yi ñuy seetaan xamante ne dañoo bëgg zéro stress buñ ko waxee pour xale yeeg mag ñeeg ñëpp la pour loolu moo ko tax a jug donc Casare Madu ñun am maat am na ñoo am nañ ci néeg. ñoo xaju leen ci. xajuñu ci kaas. am di daa am biir ma am biir am di daa rëy ma rëy. te man ñi bu may dugg damay booru ci kaas bi ci ci ci ci kër gi. loolooy problème ah xanaa buñ ko changé ngeen ngeen xam ci. kër googu damaa namoon kenn filmé ko sax tegal ko zéro stress daf may. kër googu de xanaa bu duggee zéro stress boobu <laughs> ña koy xaar bari de kër nday màdd eh, xale yi koy xaar bari nañ trop. léegi kon yow ngay def ci fin d'année. Mm-hmm. sa kër gu ndaw googu nga xam ne yow sa xajoo ci. Mm-hmm. kon baax na de noonu laa ni ma loon ko waxee ñeneen ñëpp ñu nekk ci FC sama sama sama sama naataangoo yi sax ñuy waaj lu baax yëpp ndax nee naa la change la télé change de couleur ah, LCS day si day simeeku woon na mais day solaat beneen ñaareel yére ndax vert jaune rouge la bi rek lañ nekkoon boobu ba léegi dañuy defaat jaune bi après ñu jaar ci rouge 31 décembre ñu dem ci jaune bi nag waaw couleur prospérité naataange mi jaune ci dañuy génn nag ak yéen ci lu baax ñëpp nag changé li ñu doon def nag changé leen yooyu yëpp nag yi tiina périmé na ma sa zéro seize damay changé dama ko changé tur ah, ak ay façon design beeg yëpp xoolal lii di cadi sama ginnaaw yëpp dama koy changé yëpp yu baax laa indiwaat ay couleur ñëpp loolu la ñuy def tamit dañu contracté seen bopp changé couleur design yëpp ci lu leen la ñuy dox saa su nekk du dëgg waaw dugg rek di préparer suñu ay bagages yu baax pour bégal ci téléspectateurs yi euh, wax leen rek euh, Euh, la scène sénégalaise moo koy firij faraj rek. la chaîne passionnément. Euh, la télé passionnément. bi <laughs> atta dama dégg nga ko un mois. donc voilà raba dama dégg français nag. loolu wax. maa la laaj mu nga naan jeex wax le grand réalisateur de la maison Pape Séni tey la mu attaché boppam ëpp na damaa yaakaaroon ne président de la république moom moo ko woowul woon ndax tey daal Pape Séni tey la nga semence ëpp na def ko nag ceinture bi def ko fii nag Wadada xaw xewoon na fi da ko indiwaat ne saan nag ah c'est le doyen de la maison Wadada ko fii ci kaw ah Pape Séni bàyyi li ngay def bàyyi li ngay def ak man dara neex ma. waaw man man <coughs> maa ngi nuyu Sénégal yëpp. di nuyu xale yi xamante ne tey ñu ngi toog seetaan euh, zero di nuyu sama yaay ak sama papa yi sama sama tonton yi ak képp koo xam ne xale boo xam ne yaa ngi toog jàkkaarloo Ndeye Madda maa ngi lay nuyu bu baax a baax ma lay wax groupe bi. Ramatulaay nuyu. jël ki nga xamante ne mel ni birig sama kaw indi ko teg ko fii waaye maa ko def kenn du man euh, di nuyu ñuy àndaloon ñi duñu seetaan euh, te di leen wax ne que Zéro Stress tey nag maanaam dañ ko jël rek def ko moom rek pour nag euh, lu leen neex rek mais lundi la ñuy ñëw en force nag di leen fàttali 31 décembre ñu def plateau du du boo xamante ne tey toj daal lépp ku namm ci jeu de lumière ay strass lépp luy tàkk rek na nga ñëw ca 31 décembre avec la LCS bu leen namm dara di nuyu ñu ñu àndaloon ñëpp na Ameth Tidiane sama tailleur boobu depuis Fajar ci bu bi di nuyu waa salon Khady Ndoye ñoom moom saa su nekk nañ ma rama du nga tegal bi yoon dañu leen travailler sa karaw ah li ngeen def ci man ëpp na naa ci ñu sama sañse bi 31 décembre doo ko wax kii waxuma sa sañse ci Star Boutique nee naa la fa laa lay yóbbu Cheikh Khady ñu defaral la robe bu baax dina la neex da non non damay toj. eh xadi maa ngi ñëw. man farax ah, eh, boo xewoo foofu bu ñu la farax tool nday màgg jee tax. vraiment yow xam nga waaw uy ma xam nga tey ba laa bëgg ñu tëjee ko ci plateau bi tey. man maat bi moo daaneel. man maat bi moo daaneel. xale Sénégal wax leen maat. suriirul ma bàyyi way madı, banu dene kırnayı madı.